da ngay am jabar sa jabar du la mën a respecte man dinaa toog juróomi fan sama jabar du ma ko jox dépense parce que jigéen dépense yoro ko suñu papa yi caay lañ doon sol di gàbb yore néegu ñax ak baraak bu ñu duggee seen biir kër seen jabar gàttandu leen ak ndox raxas seen loxo jox la añ amuloon woon bindaan sa jabar moo la doon toggal da la defal lépp ah di di xëcc si sikkim bi di raay sa bopp bi tey nga am pajero yore kër bu climatisé ah yore xaalis bu bëri sa jabar du la xool dégg nga patron bu takk mbindaanam ba Ahmed Aïdara wax ko si euh, wax sa xalaat mi ne am na benn patron bu takk euh, mbindaanam mi ne mbindaan bi moo koy toppatoo donc commerçant bi nekk marché Grand Yoff 6 mois jabaram di ko wekk si ngaam ba ngaam yi néegu mu dem bay waaj a dee ah ndax jabar ji di ko wekk si ngaam man maa ko faj dem ko ne jëlal ñàmbi bu tooy mi ne ma lu tax nga may wax ma jël ñàmbi bu tooy dem naa si ay docteur fay leen xaalis dem naa si sëriñ jox ko 500000 francs ma ne ko comme def nga loolu te fajuwul paa ñoo ne góor bu demee ba tële da ngay njaaloo est-ce que du loo ma tax sa jabar la wekk léegi man dama lay yee jëlal ñàmbi bu toll dafa am ferñeent si biir boo xam ne yàlla moo ko def jël ko sa jabar bu la wekkee nga dem si presse bi nga weer ma parce que xam na mu jël ko une semaine dama ko ne 15 jours mais une semaine la ko jël jabaram na ko chéri mi ne ko nam mi ne ko gën naa la wekk di mi ne ko lan la mi ne ko temps yi tu es devenu El na nga meloon ba may ne ah, kon yow yàq nga sama xaalis ne ko non ba mu lay wekk boobu temps dama la jéppi won pour man da nga am yenen jigéen yi ngay nekkal parce que tu es devenu défenseur tu n'es tu n'es plus attaquant donc tay lool motax sey yu bëri tay tass lan moko waral moy ferñent mo amul suñu yaram auto gasoil moo koy dawloo wala euh, essence ñun suñu yaram tay la ko war a dawloo mooy comme ni nga ko waxee sànq yàlla moo ñu baaxee gàncax à travers les légumes et les fruits buñ ko lekkee suñu yaram am ferñent nga añ ba paré dessert lekk pomme sa yaram am na ferñent donc lolu moo ñu manqué tey légumes ñu lekk tay yépp ay poisson ñoo si nekk kuma ma à travers site bi nga xamé né moy Sénégal TV demal marché nga jël légume tangal ndox bay ba ndox bu ndugg nga duggal légume ci biir la surface de l'eau est huileuse day gàlla poisson bu nékkon ci biir kon bok lolu mo nekk jangat bo xamné dañ ci yé askan bi ndax Sénégal TV leneen indi ko fi lu dul yé askanu waa Sénégal